mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak mi FM dale nag jàmm ci seen émission démb ak tay ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi euh, ginnaaw nag euh, numéro yi passé yëpp ñu doon waxtaanee ay nit ay personnage yoo xam ne ñu am solo lañu ci taarix ndax li ñu def tey nag dañu fas yéene delluwaat ginnaaw waxtaanee surtout wàllu sécurité bu ma ko mënee waxee noonu ndax itam ci la jàmm aju. sécurité euh, ñu toll tey ci jamono boo xam ne bu euh, tiital ñu bari la waaye nag euh, li ñuy ragal itam amoon na lu ko jiitu muy troisième guerre mondial euh, deuxième guerre amoon na balaa deuxième guerre itam première naturellement amoon na euh, ci yan contexte la yooyu xew-xew amee woon yan loraange aussi la jural àddina rawatina Afrique fi nga xam ne ñun fi la ñu féetee moo ñuy gën a yitteel loolu kon la ñu fas yéene yéene waxtaanee am mbégte nag dalal ci Ibrahima Sène bokk ci PIT moom dootul gan ci réew mi waaye ku ko xam xam ne démb yitteel na ko lool mbir yi ñuy waxtaanee itam yu soxal la nuyu di la remercier waat ci disponibilité bi euh, monsieur Sène dalal jàmm ci dem ak tey ah jërëjëf maa ngi kontaan encore ci invitation bi ma def waaye ah, dama bëgg rek dalal xelu auditeurs yi. Mm. ne leen man dama historien. Mm. histoire du mooy sama métier. Euh, du loo xam ni moom laa jàng ba di ci liggéey. li mu dugal ci histoire rek mooy politique bi may doxal politique dafay ànd ak nga war a gëstu jamono bu ne lu xew pour nga mën a seet nan ngay gën a mën a taxawee. ak li xewoon démb mu euh, loolu moo tax vraiment ma intéressé wu ci première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ba euh, li may bëgg a wax rek ci njëlbeen mooy guerre boo amee ala kulli am na lu tax mu am. am na euh, li lu li li ko sabab li tax moom mooy li li tubaab di wax cause profonde am na loo xam ni vraiment moo ko lël euh, li ko sabab nag mooy euh, conjoncture mooy li nga xam ni moo moo moo ku sat almet sànni ko ci daay bi voilà donc cause profonde première guerre mondiale lan la euh, historien yi wax nañ ci politiciens yi wax nañ ci mais boo seetee ba seet ñetti yëf mën na ko ci taat yëf bu njëkk bi mooy diggante France ak Allemagne euh, dafa demee woon boo xam ni France Allemagne da ko gagné ci guerre bu metti 1870 guerre boobu Allemagne duma ko et nangu ci moom ñaari région Alsace ak Lorraine fe fe euh, féetewoo ko loolu nag mu naqari France. guerre guerre ban la woon loolu. kooku guerre Napoléon III la woon ak Bismarck 1870 ah, loolu nag naqari woon France muy. góom ci ñoom. di tiitër Allemagne aussi. Ah, boobu góom France bëggoon na ko euh, faj ah, rax ci dolli ah, biir Europe ak Asie Moyen-Orient dafa amoon ay empire yu bu ñuy wax empire austro-hongrois mooy empire boo xam ni ay Pologne ak ay xam yooyu moo leen moomoon benn am empire ottoman ay turquie yooyu moo leen moom ak empire russe empire yooyu ci seen biir moo amoon ay nationaliste ñoo xam ne dana bëggoon moom seen bopp euh, loolu moo tax euh, góom yooyu euh, am na beneen góom bu ci lalu mooy góom boo xam ne almaañ puisque Dumont France am na euh, économie jóg na bëgg na génn euh, colonie yi nga xam ni réew yi nga xam ni France ak Angleterre ñoo ko moom Afrique Allemagne teg ci seen bët soxla voilà du duma France ba pare. Euh, soxla Afrique. Mhm. bàyyi France mhm. di gu gundaandaat. foog mu woon ko ne maa la mën fekk. waaw force ba nangu ci ndax économie moo ko laaj. dafa bëgg am port yoo xam ni foofu lay eh, yóbbu ay marchandise ak dëkk yoo xam ni matière première foofu la koy jëlee indi Allemagne pour que industrie gën a jóg bon donc ñett yooyu ñoo da nekkoon ci di eh, di xat-xat bu nekkoon seen diggante diggante pays européens yi ba bis mooy le le vingt huit juin. vingt huit juin dix neuf cent quatorze. benn nationaliste. serbe. rey attentat la def euh, couple boo xam ni jëkkër ak jabar boo xam ne ñoom ñoo waroon doon empire austro-hongrois. ay héritiers. ñoom ñoo waroon doon te ñooñu dañuy fort ci ci ci évidemment waaw ndono ndono bon parce que ñooñu buñ dee empire bi ko koy doon donc empereur bi wax ser bi teg ko condition pour mu faj leen ko leen ko def mm. ser bi Russie jàppale ko parce que dafa bañ ni kenn du ko toroxal. lan lañ buggoon boobu. waaw euh, li ñu bëggoon koy mooy sër bi jël alal ju bari jox leen ñoom ñu ne ñoom kooku du soldaaru sër bi euh, d'accord sër ba la dëkk waaye anarchiste la euh, moom seen yoon nekkul ci moom kon boog ñoom duñu nangu ñu leen di teg daan dégg nga de donc sër bi al kii Russie jàppale ko France jàppale ko Angleterre jàppale ko Allemagne joppale Autriche-Hongrie bi autrice hongrie déclaré guerre Serbie ku ci nekk dugg ci biir nag. ku nekk nga faral jóg. mais parce que dafa fekkoon ku ci nekk. amal sa moroom na loo loo ŋànk loo ŋànkoon voilà. Euh, ci loolu euh, moo tax première guerre mondiale am seen diggante la. Mm-hmm. luñ ci boole ñun Afrique. li boole mooy parce que France moo moo mool fii France mobilisé eh, lu toll ci cent trente cinq mille tirailleurs sénégalais cent trente cinq mille eh, yóbbu leen pour ñu xeexal ko cent trente cinq mille yooyu trente mille dee nañ ci mbi vingt trois pour cent démobilisé waaw te loolu lu ko jar mooy France moo rek maa leen eh, maa am naa coono ñëw leen jàppale ma ah, ci loolu nag amoon na député Sénégal bu fi nekkoon Blaise Diagne ku ne xam ni moo moom lañ tuddee aéroport bi moom lañ tuddee fii benn lycée Blaise eh, moo taxaw pour mobiliser travailleurs sénégalais ndax moom dafa yaakaaroon ni ñooñu bu ñu demee xeexal France après France na leen bu ñu ñibbisee France dana leen jox nationalité. temps boobu kenn doon loo indépendance ko ñu di ko ne doon bëgg nekk français waaw loolu moo doon ji ah mais guerre boobu bu mu amee Allemagne ñu gañe ko donc France nangu euh, li mu jëloon ci moom Alsace ak Lorraine et puis Allemagne ñàkk euh, un septième de son territoire waaw un septième ba pare ñu teg ko daan yu metti ah waay mooy traité de Versailles 1919 mm-hmm. teg koy daan daan yooyu tam ak li ñu jël ci mu metti Allemagne mm-hmm. moom itam mu guux loolu mu guux loolu euh, fexe ba euh, góorgóorlu góorgóorlu ba économie jóg mu jàkkaarloog France pour jàkkaarloog France mën tëb rek mm-hmm. jàkkaarloog France euh, dafa dafa làmb fu gën a nooy mooy eh, ay poloñ ak Hongrie jëm boro es ñi nga xam ni ñu ko gën a jege te nooy noonu no nooy nooy nooy mu kooku mooy deuxième guerre mondiale ñu teg ci loxoom eh, ñu ci tegee loxoom pour ñu teg ci loxoom nag dafa woo France ak Angleterre ni leen man aw mag yéen xarma yàlla ñii rek laa bëgg di di seen mbir. Mhm. ndax ña fa nekk allemand la ñuy la ñuy làkk. Mhm. kon dama leen boole ci man. bon France ak Angleterre d' accord na ko waaw defal waaye ñoom yaakaaroon woon ni foofu la di yem. Mm. dana d'accord bu jógee foofu. ci ñoom la jëm. non foofu yoon bi mooy dem dal ci kaw communiste yi ne Russie. Mm. bolchevique xam nga bu jëlee Pologne jël foofu. Mhm. foofu ngay yaakaar. donc premier ministre France ak premier ministre Angleterre muy Daladier bu France ah, ah, ak kii kii Angleterre jàpp ma ñoo ñu signal ko ni ko demal. ba mu dóoree ba jël Pologne ba pare gën a am ndëgër lay. Mhm. dal dal ci ko France. Ah à 48 heures ma occupé Paris français yi daaw. jaaxle pare président France Pétain maréchal Pétain daal di signé amnistie pour que euh, nangu ni Hitler mooy commandé France. Hmm. waaw De daw dem Angleterre ni day day woo français yi ñuy dëgërlu. Angleterre jàppale leen pour ñu mën a nangawaat seen réew ah, loolu bi mu amee Fra France puisque Allemagne moom na ko Allemagne yaakaar na ni kon moom moom. des na ci des. Mm-hmm. Mm-hmm. mais puis mais dafa sóoraawul sóoraalewul woon ni De Gaulle mi ngi préparé pour libérer dëkkam. Mm-hmm. donc De Gaulle jàppale ko mu ñëw ci Afrique taxaw préparé wu. fekk Angleterre di dugg ci mbir yi kii États-Unis dugg ci mbir yi ñuy jàppale leen pour que France dem nangu jiwaat affaire bi mais pour nangu affaire bi français yi. ak anglais yi ak euh, ak américains yi dañu bëggoon nag ba Hitler li mu waxoon ni di dal ci kaw russe mu yegg ba pare bëgguñu woon néewal doole Hitler ndax mi ngi songu russe ndax ñoom lu leen seen soxla moo daal russe communiste yi Hitler gagné leen. bu leen gagné ba pare ñu dal ci kaw Hitler. moo taxoon ñu yéex di raam. waaye bi Hitler demee ba Russie stoppé ko dal ci seen kaw. ñuy rikol di daw si di ñibbi si. Russie songu leen pour ñëw jot si Berlin. boobu la anglais yi américains yi ak français yi euh, profito pour libérer Paris libérer euh, Europe dem Allemagne. mais bi ñu egsi fekk na Russie libéré foofu yëpp ba occupé Berlin. Ah. fi gis nga gis nga euh, euh, commandement armé bu Allemagne euh, ñoom traité d'amnistie de capitulation moom la si signé ak Russie capitulé mm-hmm. waaw Russie bàyyiwul leen dara loolu loolu moo taxoon ñoom bi ñu fekk. Russie yi ba pare guerre bi ñoom ñu ñëw toog ci Berlin Ouest ñi fii ñoom dun fi jógee Russie ni kon kon wax nañ nañ waxtaan parce que ñun ñoo doon allié pour xeex Allemagne gagné nañ Allemagne matul matul tool matul kay ñuy songu x bu fii ñu d'accord séparé Allemagne dégg nga de mm. loolu mooy deuxième guerre mondiale li ko indi comme première guerre mondiale mm-hmm. diggante bu naqari bu nekkoon entre France ak mm-hmm. Allemagne teg ci nationaliste yi nekkoon ci biir empire yu mag yi mm-hmm. ñu ñu jóg ñu dañoo bëgg même seen bopp waaw loolu bu mu amee mm-hmm. ba ñu toroxal Allemagne Allemagne nangu jóg moom itam nangu toroxal France toroxal ñi ko eh, ñi ko bëgg a leen toroxal mais fi mu mooy moom moo mujj torox Allemagne loolu mujj occupé gagné ko mu jeex mu tombé woon économique tamit bu metti non gis nga crise économique bi dafa accéléré rek yi fi mooy c'est la crise de 1929 parce que booy guerre da ngay am koom-koom. dégg crise bi li ko indi crise économique li ko doon ñu ni préparé wu di dem guerre. Mm-hmm. xam nga da ngay dépensé di jël di dugg. jënd arme wala fu ko dugg si mm-hmm. loolu moo tax ba. loolu moo tax ba mujj économie Occident euh, euh, daanu ba crise boobu am ci loolu crise boobu moom lalu Union soviétique ndax bokkul ci loolu moom dafa fekk Union soviétique au contraire diggante développé wu bon donc crise boobu dafa accélérer mbir yi te ko gën a garaawal bon mais du crise bi moo tax guerre bi am li tax guerre bi am mooy Allemagne dafa bëggoon jël revanche. ci France fekk tam Italie ah, ah, ni mu fi nekkoon. Mm. Euh, euh, moom itam euh, bëgg a jël li nga xam ni français ak anglais yi dañ ko ko xañoon ci biir Europe fekk aussi Japon jug taxaw ni day daal ci kaw Chine am yu mu jël foofu. Mm. voilà ah kon bokk loolu. dana wax ne guerre impérialiste la c'est guerre boo xam ni dana bëgg seddoo dana bëgg waaw du doon crise rek mais dana bëggoon seddoowaat àddina voilà seddoowaat boobu nag moo indi loolu waaw mais toujours dafay am lu koy eh, lu koy déclenché deuxième guerre mondiale bi li ko déclenché mooy li français yi ak Allemagne d' ak ak Angleterre d' mhm. ni Hitler mën a dem occuper Pologne ak yooyu mhm. ndax jooju dañuy jàng waaw boo ko ñemee mu neex mu dox may taxaw. <laughs> waaw d'accord léegi deuxième guerre mondiale bi lan moo ci nekkoon taxawaayu Afrique. taxawaayu la même chose. Hmm. Euh, mais euh, France dafa jël ay euh, dogal attention parce que hmm. France moom mëntu woon def dara ndax Allemagne moo taxaw. Hmm. dogal moo ñëw mobiliser africains yi. Angleterre jàppale ko américains jàppale ko. pour que ñu dem jàppale France pour. Euh, ñu moomaat seen bopp te loolu ñaari mbir am na ci diggante bi mbir mbir bu njëkk bi mooy bi Allemagne di occupé Paris France dafa rawale or bi mu amoon ci bankam nga xam ne kooku moo téye comme comme monnaie France da ko rawale yóbbu ko Mali Mali la ko denc waaw Mali la ko denc ba Allemagne yi mënu ci teg seen tànk seen loxo loolu tam moo tax dugal am doole. Mhm. pour mën a def li muy def. deuxièmement mu am beneen métier rek boo xam ni France euh, am dafa amoon ay patriotes yu jóg di def résistance résistance boobu am na ay africains yu ci bokkoon mhm. ànd ak français yi France ñoom France la nekkoon d'ailleurs Senghor foofu la nekkoon mobilisé wu ñoom ñëpp. ba fa Senghor ñu jàppoon ko prisonnier hmm. allemand yi jàppoon ko prisonnier bon euh, bi guerre bi jeexee bi tëréer Sénégal yi ñibbisi ku ne mi ngi fàttaliku caro yu ni leen français yi hmm. rayee à caro yi 1944 hmm. rey boobu métti africain yi métti boo xam ni Senghor bi nga xam ni ku ko France Makobass la. Senghor si boobu sax dafa jóg nii mais xanaa France bi du France bi ma xam. bi ñu jàppale woon surtout. non non du France bi mm. moom bi mu xam. Mm. la France est encore la France. Senghor loolu da ko metti woon. Mm. ndax bësul xalaat ni français doon def loolu. mais Lamine Gueye ci boppam jóg nii li Blaise Diagne doon wut. Mm-hmm. pour jox leen ay soldats pour que bu ñu ñibbisee nga def leen. Euh, trahir sénégalais. def leen français non seulement defu leen ko mais tirailleurs yi ñëw ndox ngeen rey li ngeen ni ñoom dana revendiquer pour que traitement bi ñu jox francais ñu jox leen ko. ñu yem ngeen ne doo leen ko yabal ndax duñu français moo tax ñu rey leen ndax ñoom doon révolté pour ñu traité leen la même chose. lam leen ni kon bokk jot na ñu jox leen citoyenneté ñëpp Afrique bu France ñu jox leen citoyenneté française kooku mooy loi Lamine Guèye de 1946. loolu moo tax bawol bawol yeeg mm. <laughs> waa Casamance ak mm. waa Sénégal oriental nekk français parce que avant français yi kan la woon Saint-Louisien Dakarois Gorée Rufisque quoi ñooñ la woon mm. mais Lamine Gueye moo taxaw nii lii nag jot na lii ngeen def li ko mën a faj lii rek la mm-hmm. bon bi ñu ko defee deuxième guerre mondiale boobu itam tax xam nga première guerre mondiale mm-hmm. nationaliste si dañu jógoon mm-hmm. deuxième guerre mondiale nasoon gën a jóg itam ku ci nit ñi bëgg a jël seen réew jël seen indépendance loolu euh, bi ko France gisee li ko li ko xaymaal mooy Indochine mi xam ni mooy Vietnam léegi nga xam ni ñoom euh, France ñoo leen moomoo comme ñun ñoom dañ jël seen gànnaay jóg ni France yi dina jël sunu indépendance Algérie jóg day di jël seen indépendance ak gànnaay français yi ne ah ñii daal bu nu bàyyi ni ma wéy rek fu ñu mujj baax kon moom dëggool daal ni man yéen nga xam ne jëleen gànnaay ma leen di laaj ci référendum mm-hmm. ah, vingt huit septembre cinquante huit ngeen wax ne da ngeen bëgg continuer ak ñun ak France wala da ngeen bëgg moom seen bopp oui à la France ou non à la France malheureusement ñi yoroon réew mi muy ñoom Senghor ñoom Mamadou Dia ñoom Lamine Guèye ak sëriñ yi leen jàppale woon taxaw def campagne pour que ñu toog ànd ak France bañ indépendance Sékou Touré ci Afrique de l'Ouest rek moom ni man dama jël sama indépendance ñiy jóg ñun ñoo noonoo ñun duñ jël indépendance pourtant PA yi parti africain de l'indépendance bi nga xam ne mooy PIT maintenant. ak PRA Sénégal. parti mais léegi amatul. ah ak xeex Anta. Mhm. dañu taxawoon pour woo askan wi pour le 28 ñu voté comme Sékou Touré. Mhm, non waaw waaw mais ñii ñoo leen ëppoon doole. ñoo ko wéy à la France mais wéy à la France boobu taxal woon. ñi bëggoon indépendance xaddi dana continuer di moo tax France daal di eh, gaawantu eh, seet nan la mën a continuer yore yore africain yi yoren boo xam ni bitim réew mën a ko nangu loolu moo tax mu prépare accord militaire accord économique et monétaire mm-hmm. eh, accord militaire bi mooy day wax ni yéen euh, amagu leen doole kon bokk damay jël damay damay taxaw garantir seen sécurité ba kenn du dal seen kaw. accord économique et monétaire mooy damay garanti seen xaalis ak seen koom-koom ba kenn du ko yàq accord culturel mooy euh, ñu jël langue française def ko langue officielle ak langue d'enseignement bi mu jëfee ñetti accord bi mu ci préparé ñetti accord yooyu en 1960 mu woo ñi nga xamoon ni bugguñu woon indépendance mu woo leen ne boo leen signé accords yi ñun ñi bañ bëgg ñun ñi bëggoon indépendance <laughs> ñu dàqaloo ah voilà noonu noonu la leen joxe indépendance en 1960. bi ko signé les accords yooyu ah accords yooyu nag mooy wéy ba nga si. Mm-hmm. ba moo jur. Eh, li xew jamono léegi muy lan li xew Mali ak li xew ci sunu xaalis. Mm-hmm, CFA waaw li xew Mali mooy Maliens yi dañu gis ni France euh, moo indi coono ci ñoom. Mm-hmm. lu tax ndax avant fi France di dal seen ko ak waa OTAN avant muy dal seen ko lan moo xewoon foofu. amoon na ay groupe armé rek yu doon bundu xataal français yi français yi am entreprise buy liggéey uranium parce que uranium dafa importance ci France ndax moo ko jox 40 pour cent électricité et puis uranium boobu moo tax France nekk puissance nucléaire ah. daa mhm. xam ko dafa am maanaa ci France voilà. amuñu ko. amuñu ko foofu la ko voilà donc euh, euh, groupe armé yooyu di bundu liggéey liggéeykat yi liggéey ci usine boobu di chantage France pour France jox leen xaalis dégg de bu leen France joxee xaalis ñu libéré ba ñu joxul xaalis ñu rey leen. ñooy otage yi ñu daan jàpp France daan envoyé ay force spéciales pour dal seen ko mais mënu leen arrêté. donc bi France dalee ci kaw Kadhafi da ci profito jël ñu nekkoon garde rapproché Kadhafi te ñu ay Touareg. dëkk Mali eh, dëkk nord Mali kama eh, eh, nekk ci frontière ak Niger mu jël leen ak seen aram ak seen bagage yóbbu leen ki daal teg leen fa Mali te loolu bi ko euh, Sarkozy def malheureusement président Mali d'accord na ci waaw ki ñuy wax ATT Amadou Touré d' accord na ci moo tax France def ko dégg nga de France indi ñooñu teg. ban ak ban objectif jubluwaay bi lan la woon. non xam nga koy pour que euh, ñoom. ñu aar usine bi ñu am Niger. pour que yàqkat yi doot ñu ko mën a def. Ah. dégg nga de bi leen bi ñu leen indee euh, euh, loolu mooy. ñooñu France yi dana def seen benn mouvement tudde ko de libé mouvement national de libération de la Zabat mooy libéré waaw Mali daal ni dañuy proclame indépendance boobu fu nu ko defee Paris Paris lan taxawoon ni ñun fi mu sunu indépendance <laughs> seetal wax ji rek seetal wax sunu indépendance mm-hmm. président Mali yooyu ci yàbbi wu ci wóor na ma ni bu fekkoon ne MFDC moo ko def Sénégal daan taxaw kii foo ko waxee ne ñooñu sénégalais porté leen plainte mhm. defu ko ndax buggul am problème ak France mais li metti ba li indi jihadis mooy lan mhm. c'est que ne MNLA Touareg yooyu pour ñu mën a euh, euh, gouverner mhm. foofu dañu lëkkaloo ak groupe armé ya fa nekkoon lëkkaloo eh, nekk eh, pour mën a eh, yor zone boobu pour gouverner ko mais malheureusement pour eux groupe armé yooyu dañoo dal seen ko dàq leen génne leen ñu daw ñu daw làqatu Burkina Faso ñoom nag ñu jël bi ñu jëlee foofu daal ni kon boog ñoom dana bëgg a conquérir des ci Mali def fa état islamique loolu la jihadis foofu la jihadis bi ñëwee donc France moo fa indi loolu France moo fa indi loolu bu fa France indi wul woon ay Menela ba mu taxaw ne di nekk indépendance lëkkaloo ak ñi coow du bari foofu coow ndax avant xëy na attaques yi ndaw yee doon am jàpp otage bàyyi kooku ñoom la war rek mais hmm. malien yi ñoom laal ñu woon suñu laal malien dégg nga de laalu ñu malien laal ñu keneen ñoom français yi daal ak européen yi la doon ciblé dégg de boobu nag euh, bi ma ñu dañuy jàkkaarloo ak Mali foofu le gouvernement Mali laaj France ni ko ndax man nga ñëw dimbali nu dimbali nu couverture aérienne mm. ak say avion mm. ngeen dimbali nu pour ñu xeex ak ñii France ne waaw mooy opération Serval mm. dafa ne waaw mais dafa indi avion ak ay troupes à terre <laughs> te bi ñëw dafa jël euh, MNLA bi ñu dàqoon yóbbu ko Burkina dafa leen delloosiwaat. Ah dafa leen waat yóbbu ki daal ni armée malienne doo leen dugg ki daal ñi ñoo fi nekk. goutte boobu nag moo indi problème Mali ba léegi ndax jusqu'à présent ba fii ñu toog armée malienne mënul dugg ki daal. Mm-hmm. administration malienne mënu fa dugg. kan moo fa nekk Emanela ak ñi mu. bi fa kon dafa mel ni France tey moo teg tànk ki daal. exactement loolu moo tax malien yi ni accord de défense bi noonu def France France sàmm ko ndax France dafay far dafa faral ak ñoo xam ni dañoo bëgg a diviser suñu mhm. France dan ko jox accord pour mu défendre suñu réew mais mu dafa ak ñu koy diviser suñu réew. Mhm. loolu moo tax maliens yi jóg nañ na fi jóge noonu abal. mooy li tubaab naan euh, l'ami de mon loolu moo tax français non non man dama toog fii parce que jihadiste yoo tax gars yi ni ko jihadiste li leen indi mooy li nga def ki daal loolu moo ci nekk bon euh, li metti ba metti mooy sunu président africain yi gis nga leen peuple malien yi ak burkina jóg noonu nii ñii naan nu abal ñoom. Macron woo leen ni leen eh wax leen damay toog wala damay dem. Hmm. exactement comme dogal nu mu waxoon africain yi. waaw yi ni ko toogal. Hmm. lan defoon 58. waaw moom la defaat rek. gars yi ni ko toogal. mooy mooy bi mu mujjee woo. président G5 Sahel 13 janvier. Hmm. voilà ko toogal bul dem mais xam plus 58 loolu taxul woon ñu bañoon. xaddi fii itam ñuy bañ duñu xaddi dañ jóg taxaw parce que li ci nekk ba nekk mooy maliens yi mënuñu xam na ni du mën a am jàmm tant que France mi ngi jàppale ñii mooy waa MNLA ak ñi ñu àndal pour aar ba intérêt am bi nekk Niger intérêt bi mooy la mooy uranium bi te uranium bi mu ko jox 40 pour cent électricité mhm. tax mu am arme nucléaire xam loolu France du ko kafe du ko kafe non non du ko kafe mais dana ko bàyyi nag mm. ndax moomu ko loo moomul <laughs> mais kon fan la ñu jëm bu ñu gisee ni yëf yi demee nii euh, bu France euh, bu fekkente ni li nga wax yëpp France ci la tegu euh, il y va de sa survie donc dañ ci dañ ciy ngoy waaw dañ ciy ngoy léegi nag bu fekkente ne ñiy dellu ñu ginnaaw tam ndax foofa jàmm dina fa am ma France li ko may doole foofu mooy américains yi li ñu ko doon jàppale américains yi ñu ni dañuy root ci seen loxo ma wax France topp européen yi wala leen kaay leen jàppale ma parce que ba leen ma jàppale wul ñii buñ fi jógee ci yéen leen jëm ci kenn du ñëw kon nag xam na ne France li ko ti mooy loolu intérêt am dégg de américains yi génn nañ ci te ñoom leen woor boo wóor mooy dañoo gis affaire bi ni mu demee gis nga même ah, Macron dama yaakaar ni non peut-être autorité française ñoo mel noonu quoi dañoo dañoo xeeb africain yi Euh, G7 ñi ma woowoon. G5 G5 Sahel ñi ma woowoon ñoom avant daan waxoon ni ñoom li nu bëgg mooy euh, MINUSMA mooy contingent militaire bi ONU yóbbu foofu kooku ñu jox ko autorisation pour ko mu mën a xeex ànd ak armée seeni armée mhm. pour xeex ak xam nga loolu la ñu wax mhm. ba CEDEAO chef d'état fekk leen ci ni loolu la ñu war a def ñoom ñu dem Macron woo leen Macron dama indi ay soldats <laughs> ñu ne ñu ne way way ñu ne way way te bu njëkk sax problème financement lañ doon wax avant loolu loolu moo non financement américain moo doon jox fu quarante cinq millions de dollars par an la jox France dégg de quarante cinq millions de dollars bu ko américain yi joxoon armée malienne. Mhm. chaque année. waaw armée malienne daan teel nekk fii. mor mhm. américain yi ni ñun danañ ci génn suñu loxo. xa ci dañ mën a jaar que France moo woote ndimbal. non non non ñoom du non ñoom non non ñoom génn ci. génn ci et ñoom daan wax ni dana bëgg MINUSMA armée boobu contingent boobu aussi li africain yi wax nan ko def na leen nan changé. Eh, euh, mandat bin ko jox nga xam ne mandat maintien de la paix luy loolu xeex am ngay takk nga xam ma da ngay dem loolu nag bi mu ko defee France bañ Russie bañ France lu tax mu bañ mooy euh, bu bu changé mandat bi armée française day tu fa dara. Mm-hmm. lu mu fay jariñ Russie lu tax mu bañ bu changé mandat bi. dimbal bi coopération bi bëgg am ak armée malienne. Mm-hmm. lu muy jëriñ dootu ko mën. Ah. loolu moo tax ñu fiitu non non loolu du fi am. gis nga loolu rek ku nekk sa intérêt ngay sàmm gis nga loolu. te Nations Unies. Mm-hmm. Eh, mënul ni day arrêté contingent ba mu fi yóbbu ndax li tax muy arrêté conti li tax yóbbu contingent bi mooy li ñuy wax accord d'Alger accord de paix moom la war a saytu pour que ñu applique ko. tant que wu wuñu ko bu fa jógee day dafay dafay lajj. Mhm. moom tax ñu ni non non ñoom duñ fa jógee. Mhm. mais moo tax africains yi ni leen changé leen mandat bi. américains yi nam changé mandat yi mais puisque conseil de sécurité. Mhm. boo amul consensus du ma am. moo tax mais ñu prolongé mandat bi ba juin deux mille vingt. fii juin deux mille bu fekkee africains yi. amuñu fulaak fayda. gësam loxo France. évidemment américain yi bu ne renouvelé day bañ. ñu dindi fa euh, euh, euh, soldats yéen fa yóbbu woon ndax kan moo leen di fay. Mm. bu leen fay France dana nekk ci jéye bu du jeex doxat ndax amul kattanu aar li ay intérêt ci zone boobu amul kattanam surtout ko russe mu ngi taxaw. Mm-hmm. di yërndu. kon bokk loolu pour dee boobu ban bañ a yàgg foofu africain yi ñoo war a seet seen bopp euh, te li wër ba wóor mooy malien yi ma gis ni nu mobilisé wu dunu dellu gannaaw waaw ñoom ak waa Burkina ñoom ñëpp mën na sax yox yox mais malien mm-hmm. malien yi dunu dellu ginnaaw ndax affaire bi da ñoom ci ñoom la xam nga mm-hmm. Burkina mm-hmm. waaw dañ lay laalaale rek. mais alakaleeg bi ci foofu la. ci Mali. Mhm. foofu la euh, bu ñuy wax barxaan. Mhm. foofu la foofu lañ toog. bu ñuy wax ministement foofu lañ toog. Mhm. kan moo teree armée malienne dugg foofu ñooma. Eh non kon bokk non man li ma métti mooy président IBK président du Mali. bi mu toogee ak Macron amul flag fa de ni ko ñii seen problème lii la mais man sama problème lii la. sama problème mooy kii daal. na fa sa armée bi jógee sa sama armée toog te pour loolu France mi fexe ba aar ñii ba ñu armé wu ba am doole. Mhm. ne leen France désarmé avant ñu fay jógee na leen désarmé. ndax ngànnaay yi ñu yor euh, armée malienne sax daanaka amu ko. amuñu ko parce que te France moo leen pour ñu mën am loolu kon bokk waa wax ji lii la rek sunu diggante ak France. Mhm. Euh, yëngatu na ci accord monetaire mhm. accord économique et monétaire aussi yëngatu na ci sa CFA bi ñun mhm. ñi taxaw nañu ba moo tax suñu chef d'état yi nii ak dañuy génn dem ECO mhm. dem ànd ak ñoom Nigéria waaye rek ngir yàlla ñoom Nigéria nag bu fi nekk di siisante ba loolu yàqu. topp voilà ñii di def yëgaloon na ko waroon na ko yëgal loolu waxu ko daan saret la ndax bu nu waxoon ni ñii li ñu def baaxul day yàq li nu bëgg def ensemble ma xam waaye waaye def nañ yëgal nu ko mais loolu waxee nan la ci ay kilifa yu toll noonu loolu nag bu nu fi nekk di di def ay subjectivisme boo xam ni li ñu sëmb pour libérer wu ci France ñu xajam mais est-ce que yaakaar nga ne dinañu libéré gu ci France ak éco bi ma fàttali juste que démb ak tey ngeen di teewlu ci réew mi FM ñuy dalal Ibrahima Sène bu PIT euh, li ñuy waxtaanee yëpp mooy li lawee ci première ak deuxième guerre mondiale bi kon tout est euh, ñu ngi ci conséquence yi kon mën nañ ko jàpp éco yi yaakaar nga ne dina wute ak fa mais wute nañ déjà. parce que premièrement li ko lal mooy sunu réserve yi doon denc ci trésor français nangu conseil yi nga xam ne moom la France amoon BCEAO ak UEMOA di seet dañuy def ak di ci taxaw dindi nañ ko jël noonu engagement ni bu ñu demee ak ñi ci des euh, sunu xaalis ñoo koy garantir sunu bopp euh, euh, li muy jar ñoo koy définir sunu bopp dañu sunu banque centrale mais ñoom def na leen war ñi ci des xëy nan góorgóorlu te bàyyi wax toppoo. mais loolu est-ce dina arranger France. mais doo yow boo kuy seetlu arrangé France kay doo ko def. waaw parce que France lu ko arrangé wul tamit mu ànd ci. yaa ah, ndax xel mënu caa tey ndax amul lenn ci ginnaaw. ma ne France àndu ci di ci mënul dara. dégg de gis nga euh, sunu chef de dana ko bett ndax France euh, mësul woon yaakaar ni mësul woon yaakaar ni dañu nangu dañu jël euh, sunu réseau ci sa loxoom. ndax France dafa waxoon woy mën na ko déposer ay Suisse ak yooyu gars yi de dana ko ñun dana ko jël yóbbu sunu banque centrale en attendant ñu am banque centrale nationale France da ko bett. nga de foogoon ne mooy teg loxo ba tey ci réserve. non non mi mooy mënatu ko. Hmm. mënatu ko léegi li ci nekk mooy ñii bunnu gàllankoor topp woy war na noo wax woy école bi ñoom rek ñu ko waaye ñoom nan def li ñu soxla kay mu yegg. lan moo sookee affaire bi lan moo waral euh, xëy na ndax gis nañu fee dafa mel ni chef d'état yi dañoo xaw a euh, ñàkk fayda tuuti ci kanam France su ma ko mënee waxee. noonu non non c'est la première fois uh-huh. bi ñu am fayda. Hmm. <laughs> c'est la première fois ni ñun lii la ñu bëgg. Hmm. fii la ñu jëm. France nag dañ def lu pour gàllankoor te ñii nag dañ doon dimbali quand même pour gàllankooru France bi jàll. d' accord kon ay Nigéria ak yooyu bu ñu ñëwee yëf yi dina gën a. di dë di gën a dëgër oui. waaye topp bi ngeen tax waxul leen nu d' accord nañu dañuy ànd waaye ngeen jóg def mais ñoom li ñu def seen diggante ak France la du seen diggante ak ñoom seen diggante ak France la ñu wu pour gën a mën a liggéey ak ñoom ñi topp wooy waroon ngeen noo wax loolu waxee lan la. non non bu nu yàq mbir yi ah, foog ñu génn fii après mën a lëkkaloo ak ñeneen oui waaw parce que tant que ñu ngi woon ak France ñële mënuñu woon jëflante ak ñoom exactement c'est des mm. moo tax mii ñii geste bi ñu def mm. même Ousmane Sonko nee na <laughs> li muy bañ bañ bañ yëpp mm. nee na noonu la noonu la war a def kon bokk nii seen mbir yi quand anglophone yi nag bu nu fontoo de toute façon bu nu bañee UEMOA am na banque centrale banque centrale mooy jël xaalisam tëgg mëneem defar indépendamment amul France dootu fa dellu kooku amul wax. yaakaar nga ni pare nañu pour fii ak juillet deux mille vingt ñu tàmbali. mais écoute loolu lan la xaalis bi nga delloo si a banque centrale. teg ko fa la la quand kooku ban problème moo fa nekk. kon éco bi tappale tappale rek boo fa mën a nekk mais du benn problème. kon kon éco bi su su su taxawee mun nañu ne benn ci conséquence su euh, euh, guerre yi nga xam ne moom la ñu weesu ak nooteelu France bi dina deñ waaye ba tey wàllu kaaraange ak euh, yeneen ak yeneen. daf fiy des gis nga bi bu France jógee Mali. Hmm. dafay ubbi bunt pour mu jógee fépp. CFA bi bu ko échappé totalement. mënut hmm. la pour que France dootul am benn pouvoir économique fii ci. Hmm. li ci nekk mu nekk mooy. France lii xew Mali lu rëy lay doon moo tax nañ ci taxaw Mali yay gagné bu nu gagné yooyu eh, moo gagné hmm. France leneen lay doon. parce que bi ci américain génnee seen loxo rek. Hmm. la seen doole wàññeeku. bon bon doon dara. am ñu dara. te européen xam naa Allemagne na na ñoom du ñu yóbbu ay soldats kan moo leen di jox. Angleterre Badou Allemagne lam leen guuxaloon ba tey. waay ba tey moo fi nekk première ak deuxième guerre mondiale ba léegi. yàbbi wuñu ko ba léegi yàbbi ko ba léegi. d'accord dañu signante kii rek waaye yàbbi wuñu ko ba léegi voilà. fàttewuñu démb. ah non kuy fàtte démb. Hmm. léegi troisième guerre mondiale gi ñuy tiit jàpp nga ne. Euh, waxoon nañ ci waaye tey ni contexte bi tëggoo euh, fan la ñu ciy toll. troisième guerre mondiale li tax ma ne mënul am parce que euh, grande puissance yi fi nekk. kenn amul intérêt xeex. xeex ak arme. parce que États-Unis mi ngi ko arme Chine mi ngi ko am. Mhm. France mi ko am. Russie mi ko am même Pakistan ak Inde am nañ ko. ko mhm. ko boyal ñu boyal la. Mhm. non non ñoom seen xel nekkul moo tax Trump ni moom pour gën a mën a maintenir doole Amérique ci àddina. sanction économique lay jël. puisque am na doole économie am na doole. Mm. ku ko ko weddi mu teg la sanction teg la ay taxes. Mm. naxasal sa sa économie. Eh, gis nañ ni mu def Chine. Mm. gis nañ def euh, Russie gis nañ def Iran. mais loolu muy def tam am na am na limite. Mm-hmm. ndax dëkk yooyu entreprise yi ne euh, Amérique foofu la ñuy jaayee. bu nu amatul fu nu jaayee foofu na jëm. waaw xam xam loolu loolu moo tax loolu moo tax Trump mën na ak Chine dañuy seetaan mu ne euh, euh, Europe boo leen sanctionné wul Iran damay taxé seen oto yi ngeen di envoyé fii Amérique mm-hmm. ba Europe topp Iran woy ba def xam nga ñi <clears throat> amuñu sax fulla amuñu fayda mm-hmm. kenn waru leen naw donc xeex bi mën a am léegi mooy c'est la bataille économique mm-hmm. te E, ak technologique te Trump mi ngi koy mëne kooku mooy guerre bi mais dóorantey bal mënta nekk mhm. tey bu luy continuer ëllëgu France foo ko gis ah xanaa ngaay mexe sax moo koy tane <laughs> Afrique itam dana mën a suqaliku ndax ñëpp jàpp nañu ne wala ñu bëri France moo ñu tee dem gis nga Afrique mm. li ko teree dem du France rek ndax yeneen réew yi nga xam ne France nekku fa demuñu fenn li ko tere dem mooy suñu chef de war a lëkkaloo wut doole taxaw liggéeyal Afrique. pourtant koom-koom baa ngi fii. waaye lan moo ñu tee dem lañ lañ xam parce doon lëkkaloowul. doon lëkkaloowul jàpp ne mën ngaa demal sa bopp sa bopp te dañ lay nax hmm. kenn mënul demal bopp. doon lëkkaloowul gis moo tax BCEAO CEDEAO bii ñuy def CEDEAO ak monnaie commune bi na ci ñëpp taxaw pour mu antu. Hmm. parce que foofu rek la ñu mën a aw pour ko zone euh, de libre échange continental bi nan taxaw ba mu am foofu la ñu mën a lëkkalikoo pour taxaw xoolal bi nu àndee léegi nii Nations Unies conseil de sécurité. Mhm. war nañ foo am place. Mhm. Afrique yëpp a taxaw bokk taxaw ah. mais dana am dana am. Mhm. Afrique fu mu lëkkaloo taxaw nii day jël boppam day toppatoo mbiram dana jàll. waaye bu fekkee réew mu nekk lan wax ni yow yaa fi gën a rafet yow yaa fi ëpp doole yaa fi gën a. Mm. tam saa yi tam bitim réew ñoo ñoo jaxase ñoo ñoo war a am fay fulaak fayda nag. Mm. ñoo war a am fulaak fayda mais lu mais euh, billaay CEDEAO bu taxawee ak monnaie commune am. Mm. muy France muy Union européenne kenn dootul saf fii ci Afrique kenn dootul ko saf loolu moo tax tam ñoom dañoo. du ndax ndax ñoom itam daanaka li dundal seen koom-koom yëpp fi lañ koy wutsee. exactement exactement kon bokk vraiment xam nga euh, Macky moo doon tooñ toppoo. Uh-huh. <laughs> Dakar fi koy jaay marché. Uh-huh. sunu koom-koom bi fi koy jaay. doo leneen. Uh-huh. mënu ko jaralul. réew mu mel ni Sénégal tey pétrole feeñ fi gaz feeñ fi euh, yeneen yeneen i xéewal euh, France danañu gën a teg bët. mais du France rek. ñu tëg ñëpp ñu tëg rek waaye ma ni moo tax bu nu demul CEDEAO mm. li xew ay euh, comment dire xew ay émirats arabes xam ne am nga pétrole am nga xaalis waaye tekki woo dara. Mm. moo ñuy dal teg moo ñuy dal. donc CEDEAO bi daal nan ci taxaw nañu jaral lu nekk. nañ ci taxaw jërëjëf Ibrahima Sène ñu ngi lay gërëm ci waxtaan wi am na solo bàyyi la nga tàggoo. Ah, jërëjëf soxna si yow toujours plaisir la pour discuter ak yow. très bien. jërëjëf kon mu nekkoon Ibrahima Sène bu PIT ñu doon waxtaanee première ak deuxième guerre mondial li ko sookee waaye itam li mu jur comme euh, njeexital bokk na ci tey fii euh, réewi Afrique yi toll waaye bokk na ci itam euh, xaalis bi nga xam ne xëy na France moo ci teg loxo muy monnaie bi CFA bi ak itam li nga xam ne mooy wàllu kaaraangeeg yooyu yëpp jóge ci ñaari guerre yi ñu doon waxtaanee ñetteelu guerre bi nag moom ni mu ko waxee xel xalaatul mu am ci wàllu ngan. gànnaay xëy na ci geneen fànn euh, surtout wàllu koom-koom am na solo ñu ñëwaatoon ci lii bu ko defee ñu xam ne lii xew tey itam euh, am na lu ko jiitu te daanaka foofu la jóge ñu lay gërëm bu baax ci euh, disponibilité bi gërëm itam jaawo jàllo mu ne woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom moo faxe woon ci kàddu gi ñu dig leen daje dimanche beneen incha allah waxtaane leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm